dem nu ngi jooy maam Cerno Ibrahima weere ngi jooy laylan ba daa bayima ca moomaat sunu weeru koor wa jooy asalaamaaleykum wa rahmatullah bokki jullit yi bokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaar tey jii ci dimaas ji yemook ñaar fukki fan ak benn ci weeru avril ci atum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 comme ni ngeen ko xamee siiwal nekk site d'information boo xam ne du ñu bàyyi dara ba tax na lépp loo xam ne dana tukkee ci màggal gi danañ ci dikk ak yéen incha allahu rabbi ma jooy la see ahmadu awa balla baayam ba fooxoon ca kër maam balla ma jooy la see muhammadul abib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 asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di nuyu mboolem ñi ñuy seetaan ñëpp man la sëriñ Dame Faty Mbacke bu sëriñ Abbas ñu ngi fii tey ci Darou Mouhty ci kër sëriñ Abbas di def màggalu Darou Mouhty gi ni ngeen ko xamee muy nisfu Saabaan di bis boo xamante ne bis bu màgg ci lislaam la waaye mel na ne eh, yàlla suñu borom da ko dencaloon maam Thierno Ibra bis bi ñuy fàttaliku borom daaru it mooy bis bi nga xamante ne ci la sëriñ Touba jugee Ndar ci la Sëriñ Tuubaa jógee ci tukki bi bi mu ñibbisee ba egg si ndar dafa woolu borom daarul moo te mu fekk ko ndar ba mu ñëwee it di mbégte moo xamante ne mbégte mu kawe kawe la wax nañ ne ñoom ñaar tisbaar ñoo ko julli ñoom ñaar képp kenn raxu leen ci ab néeg julli fa tàkkusaan julli fa timis ba julli fa gee te kenn kenn kenn raxu leen ndax bi mu jógee ci tukki bi liggéey bu mag bi nga xamante ne moom la bàyyi woon maam Cerno Ibra Faati ci bis boobu la lañ lañ doog a gisewaat mu wax ko li nga xamante ne moo xew ci ginnaawam fi borom daaru jógee nag sëñ moo daaw balla doon na ko fàttaliku ci bis bi nga xamante ne moom la fi jógee def na ko ci nekkuk sëriñ Modou Moustapha yëpp bis boobu la doon màggal waaye bi sëriñ Fallou ñëwee bi mu ko laajee ndigalul màggal daarul mooti gi ndax noon la ñuy doxee ñun waa daarul mooti képp ku fi nekkal Serigne Touba yow la ñuy def suñum Serigne Touba lépp màggal gi saa su jubsee dañuy ñëw ba ci yow laaj la ci ndigal Serigne fàllu ci jamono jooju bi ko sëñ Modaw Balla laajee ndigal mu ne ko màggal gi dinañ ko def waaye nag dañuy soppi bis bi ndax bis boo xamante ne bisu naqar la kenn du ci woote di ci feeñal mbégte daan ne ko nañ ko def ci nisu Sambaan ji ndax mooy bis bi nga xamante ne mooy bisub màggaluk mooy bis bi Serigne Touba gisewaat ak maam Thierno ginnaaw tukki bi. te lu yéeme am ci seen seen diggante ndax ndax bisub màggal Touba gi mooy bis bi nga xamante ne ci la Serigne Touba mbakke baa Baari jël njaboot gi teg ci loxol maam Thierno. bis bi ñuy màggal Daaru Muxti mooy bis bi nga xamante ne ci lañ njëkk a gisewaat Serigne Fallou mi yeesalaat màggaluk Touba gi. moo yeesalaat màggalub Daaru Muxti gi at mi it dañ ko séddoo ci digg bi dañuy màggal Daaru Muxti toog 6 mois màggal tubaa màggalub Touba toog 6 mois màggal Daaru Muxti borom sëriñ Serigne Touba seeni mbir ci zahir rek lu ci bari lu ci bari da ci feeñ loolu mooy mooy li wara a màggal waaw màggal gi nag ñi ngi ci 75e édition buñ ko tàmbalee ak léegi waaye ci Serigne Abbas bi mooy ñeenteelu màggalam bi mu nekkee borom Daaru Muxti ak léegi moom it bi mu ñëwee ci yaatal xam na jamono ji ñu toll communication moo moo yor lépp donte defuñu ko ngir ngir wane borom daaru ndax du ku nëbbu bañ koy wane. waaye jamono ji mooy doxe noonu faaw ñu wane ñi nga xamante ne moom lañu suñ borom jox ngir suñuy ndaw raw roy ci ñoom ndax am na ñoo xamante ne ñi ngi ci suñu wet di wane ñeneen ñoo xamante ne ñooñu lañu bëgg ndaw ñi def ay def leen ay exemple te am nañ ay exemple yu doy ay exemple Serigne Abbas ci yaatalam mu ci commission Magal Daaru Muxti gi gën koo yaatalaat ci ci ci ci yaatu googu ci le moo ñu man a may bu màggal gi jàllee am colloque yoo xamante ne dañ koy def am caravane boo xamante ne ci régions yi Sénégal yi dañ fay dem ngir ngir ngir fàttali bis bi ngir soññewaat ci wane wane jikkooy borom Daaru Muxti gi waaw ren ñi ngi ko doon defee King Fat Place le 14 le 14 bi passé université Cheikh Anta def nañ fa def nañ fa benn ci bisu màggal gi it noonu la commission bi di nekkaate ci biir dëkk bi commission culturelle lu jëm ci exposé yi ñoo ko ñoo ko yor ñu nit ñu dénk ñu biir kër sëriñ bi liggéey bi kilifa yi gis ngeen leen ñi ngi ñëw ak a dem waaye bëgg nañ taxaw ci biir kër gi ba ba ba képp ku fi ñëw moom sa xol dina sedd te it loolu lépp mbégtim sëriñ Abbas rek lañ ci sàkku cérémonie officielle bi it suba lay doon incha allah bu 10 jotee su ko defee eh, sëriñ bi ñaanal gan ñëpp ñu ñaan suñu borom fekkee ko at yu bare bari te ànd ko moom.